mbër gàlle yaay mbër gàlle fanaan mbër gàlle yaay salaamaaleykum suñu mbokk internet yi amaan mbégte contentement kon nuñ koy waxee rek nee leen yéen ñu dara yàlla xam ne dootoo leen ko defati tey ñoo ñëw si Thiaroye Gare kon nuñ koy defee rek à chaque fois nee naa leen ñun dañuy wër li nga xam te ne moom mooy actualité ndax mbër yi nga xam te ne ñoo amoon combat bari nañ lool lool lool mais xam te ne ñoom la seen combat taxawoon ñëpp xam nañ nag euh, fas waxtaan ak ki nga xam te moom mooy ñaq combat bi waroon am la set faf yàlla combat bi amul ndax li nga xam te ne moom mooy Covid bi ñoom nag préparé woon nañ seen combat dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi xool affaire bi na la def ci moom ñaq maa ngi lay nuyu. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seen bi Fatma Dia di sant suñu di ñaanal suñu ñaanu waajur. Mhm. suñu ñaari waajur ñu tëdd. Mhm. gënal leen fi ñu jógee yàlla xaral àjjana bépp ku nekk ak kuñ fa fekk. Mhm. yàlla na yàlla boore xare àjjana aussi tamit xam nga ñu amoon ay nit yoo xam ne dañoo bokkoon ak ñun fii nekk ak ñun doon suñuy mbokk. Mm-hmm. dama koy jiital ci Mignane Sarr Babacar waajuram bu jigéen boobu wàññeeku maa ngi ñaanal yàlla na ko yàlla xaraa àjjana mm-hmm. aussi tamit Waly Gueye euh, yaayam dafa wàññeeku semaine bi passé tamit moom maa ngi koy jaale mm-hmm. sang tamit dafa taxaw sama côté ci bépp sangam ngi dëkk ba parcelle case ba xam nga waajurum jigéen dafa wàññi ko démb rek lañ demoon sarax ba di ko ñaanal yàlla na yàlla xara àjjana yàlla na yërëm sama waajur bi fi jógee tamit maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xara yi tamit muy Tafa Ndiaye papaam dafa wàññeeku fan yi moom it maa koy jaale aussi Tafa waaw Tafa Tafa tamit beneen Tafa bi maamam dafa wàññeeku maa ngi koy jaale di ko ñaanal yàlla na yàlla xara àjjana waaw di santaat waa yi gépp di sant sama entraîneur yi muy Aline Fall ak aaru na Bangoura dafa dog te ñun ñoo ko dog amul kenn ko dog ku dul man mii. parce que xam nga ndax préparation bu metti quoi. waaw Fatma nag egsi nga. nga dalal jàmm. nuyoo bi am na solo gudd na lool mais am na solo parce que tamit da nga nekkoon ci wàccaay combat mais ñàkk dañuy ñëw ci li nga xam xamante ne moom mooy sa combat ñu gis Ndiar production moo tëggoon sa combat ak Alioune Seye 2 ñu gisoon ni kombaa bi paa bi defoon na benn déclaration ñu bari nag. li ñuy laaj ke ne ñaq jariñu est ce que paa bi li mu waxoon ni yow di nga ko bëreel Alioune Seye dina ko bëreel naam Alioune Seye dafa nekkoon ci contrat am combat mais ñaq jariñu combat boobu noonu contrat bee nga doon remplir sa com euh, sa combat bi amoon ak Alioune Seye 2 wala euh, euh, combat beneen combat bi nan la demee parce que paa li mu doon expliquer est ce que réellement noonu nga kiiwaat pour ñaan dem production tëgg sa combat. waaw paa bi suñu paa la ah. mhm. li ma waxoon rek si premier combat bi laay waxaat. Mhm. bëreel ko moom journée même bu ñu fayul dara fierté la premier combat loolu laa waxoon n'est-ce pas. Mhm. parce que tax ma xoon loolu mooy li mu liggéey ci làmb def ko ci làmb warul soxla benn mbër mu jafe ci moom waaw parce que bu jaaree ci yoon bi kon nag tey ñàkk jar bi amul benn promoteur bu koy moste doo ko dolli nee naa làmb damaa bëgg soxla ma amateur di kontaan ci man lépp lu làmb di laaj dama koy joxe man dugg naa ci làmb rek ma boo bëriwul amateur duñ ñibbi dañuy toog xaatu ndax kontaan parce que loolu ci nit ki lay nekk nit ki li muy nekkee ci nit ki mooy li nga liggéey dafa am loo xam si maanaam ci yaw yaa koy incarné wane ko wan ni carrément donc tey autorité yi bëriwuñ caare mhm. waaye man tey même bu ma kenn puusul mun naa puus sama bopp mhm. moo saa mu ñuy mu saf saap mhm. mais xam a paa bi dafa waxoon ni di ngeen ko bëree ndax seen reliquat ñu doon wax joxu leen ko mais combat bi ci bee la bee combat bee la suivre wala beneen con beneen contrat ngeen signé waaw moom bëgg rek ma waxaat loolu rek mooy promoteur yi ma bëggoon bëri na trop moom même bu ma waxee loolu waaw waaye xëñ na làmb ji demee na benn côté boo xam si maanaam ñi nga war a bëreel mënoo bëree ñoom te nag maanaam làmb boo bëriwul rek bu la rombee xam nga yeneen xale yi mujj génn da nga leen di mujj jël. Hmm. ko ko demee noonu nag bii ñu ñëw jël ko defaraat suñu toogaay quoi. mais bokkut ak contrat bee ba léegi. non non bokkut ak contrat bee contrat bee moom. boobu jàll na parce que ni mu demee ñëpp gis nañ ko. ok waaye bii dañoo waxaale waat mu fay ma xaalis ma bëral. ok mais seen xaalisu reliquat bee joxu ah, loolu yow waaw parce que may liggéey xam nga dafa am loo xam ci liggéey lay am. nit koy nangu na loo xam ci bu ah. wax ak moom nga bëgg mu fay la ko. Hmm. dama ko laaj xaalis mu fay ma. beneen bi mooy ñu gis ni fi nga jugee ñax ñaata combat nga def. waaw fu mu toll nii bii bu damay def vingt combat 20 combats 20 combats mais 19 combats nga def. 19 combats victoire. Euh, am naa 13 victoire benn combat bu avorté. Mhm. ak 5 défaites. 5 défaites ñan ñoo daan ñaq. ñaq jariñu booy bool moo ko njëkk daan. Mhm. général Fass. Mhm. waaw ak euh, Jokkel. mooy troisième défaite bi. Pambaay numéro 2. ak doomu dàngu. cinq défaites yooyu la am. cinq défaites yooyu. sa combat tey mu dee li ma cinq combats yoo xam te réussir nga ko. waaw Moussa Balla Gaye uh-huh. Euh, euh, ak euh, jaay naa ko arena tuus bi arena tuur bi buuba fit mbaytin laay Pythagore waaw laay Pythagore mhm. ak Moussa Balla Gaye waaw Moussa Balla Gaye après nga dugg ci kalaaf bi waaw ma dugg parce que si Moussa Balla Gaye laa jógee dugg si kalaaf bi wane sa sama bopp daan ci ñan daan ci nongoloo laa ci daan mhm. général Fass mhm. Pambaay daan ma si ak doomu daan parce que année boobu man rek maa bëri sama quatre combats waaw nga pour ci lan nga toogee woon. waaw maa ngi toogee toogu ma sax parce que final maa ko mujj bëre. waaw maa ko doomu dàngu. final ko jëloon. doomu dàngu moo ko mujj jël. Mhm. waaw parce que Ramadane dafa blessé woon dafa tukki woon. Mhm. mook Pambaay ñoo ko waroon bëri ñoo waroon drapeau bi. Mhm. ñoom bu ñu bu kee tukkee mëntuñ ko tëgg ñun sëñ ñu def grand combat bi ñu bëre. final bi. final yow ñan nga ci daan kii. Euh, euh, Pambaay laa ci kii laa daan nongolo laa ci daan ak général Fass. am na solo parce que tamit il faut que ñu rappeler tuuti li nga xam te ne moom mooy palmarès bi da ciy baax ndax ki ko ku ko bëree rien à dire franchement ñàkk ñu gis ni fi nga toll bëri nga 19 combats am na ñu xam te ni bëreeguñ ko mais ñoom fu ñu egg ñàkk àggu foo lu war a lool parce que da ngaa bëri ay combats yu bari bëri ak ay ndaanaan après sa combat ak kéwul sax dafa xam ñoom mu surprendre lan moo war a lool problème staff la wala problème manager. waaw non staff allah. Mm. estaf ñàkk jël ñu ko yoroon xëñ na ñeneen dañu cee dolli ñu si dolleeku nag xëy na bu ñu waxtaan ñu ñëpp dañuy teg ci yoon du problème estaf. du problème entourage. problème xam nga lan la. mooy amuñu autorité yu bëri yu nekk suñu ginnaaw di gonfale promoteur pour ñu mën a tëgg yenn bëri ak ñu bëgg. benn ñaareel mooy amuñu papay mbër amuñu mang mbër amuñu promoteur li ma la rek. ñun moo tax suñu kàttal ak suñu fit ak suñu jom moo ñu génn fii ñu nekk waaye fii dafa metti caaro yi met na xëy na nag moment bi ñuy soog a gëm làmb pour jàpp loolu kasel lu leneen beneen lu tax ma jël xale bi ma jël nii muy moo mag sax kiweel moo mag moo mag waaw magee na ma deux ans foog noo xamee waaw xam naa ne non ñun ñun fànn ñun ñëpp xamante ne la ñun ñëpp xamante ne da nga jël kiweel tax ma jël ko tamit xam nga mooy tamit ñi ma war a bëreel mënu ma bëree ak ñoom comme na parce que tey ku am 19 combats xam nga du woon sax yoon muy bëre kii. xam nga ki jóge ci ci ci défaite. Mhm. jugaat ci defet ñoo jóge ci mag ci nga ñëw bëre moom. Mhm. ñàkk koo bëre waaye làmb moo doon loo xam si. Mhm. soo bëreewul ñu fàtte la. te man amateur dañuy contacter pour samay combat taxaw. kon war ma toog xaar te gëmoon naa li nekk si man te xamoon naa ni. suñ ci eggoon rek. ñëpp xam li tax ma jëloon ko. waaye nag xëy na kooku am na. moo mënoo ci wax lu nit ñi gëm parce que gis ñu ko. mais gis nañu état physique macha allah maa ngi la koy wax léegi léegi ndax Keweul ñu gis ne combat bi amoon na importance ci moom ndax su ma juumul ci mojja la jóge moo ko daan. waaw jóge ci Sunjata Kayta après jóge ci Sunjata def naa match nul la ah. match nul waaw léegi yow nga jóge ci li nga xamante ne moom mooy ci dynamique la ñuy wax. de mhm. victoire. Mhm. tey nga cartonné bokk ci meilleur lutteur yi. Mhm. ta génération. ndax da nga génn ci kéem moom mooy Alioune boobu avorté avant Alioune da nga def combat bi taxaw. ñu ne ñaq waru ko woon jël ñu gis nga nekkoon ci entraînement yu metti à un moment donné combat bi li ci des bareetul ñu ne combat bi amatul loolu la def ci yow. Ah, parce que su ma waxee dëgg li ma ba ma dalee bëri si làmb ba léegi. Mhm. combat bi ni ko préparé ni ma si entraîné musuma ko entraîné. Mhm. li ma def si xaalis musuma ko def ci combat. Mhm. waaw. ndax la parce que ndax wax jooju nga wax mooy dafa am ci lu ma jógee dama marqué sama am surtout daaw saison boobu ñu jógee. dafa am lu fi xew. ñu tooñ ma mu demee noonu. ñu la. ok nangu sama reliquat. kon saison boobu saison niil la doon si man. tey mu ñëwaat saison bi jël koo xam si amaana maa ko raw ci làmb. waaye nag su ma toogee di xaar rek ñu may xaar ku si bëri ba pare boo daanee da nga naan bëri naa te bëriwul làmb loolu la. léegi li ma def mooy nag li nga xam si man moo nekk ci man ma yëg ko xam ko. di ko dund dama war a ñëw wane ko si jour boobu. ok tax ma liggéey ci liggéey boo xam si mosuma ko liggéey booy nag. Hmm. yàlla surtout am ay nit yoo xam sama staff nii nii sama xaalis benn xaalis génn ñoom ñoo génne jóge naa fi nekk naa fi salle salle bi ma nekk benn gaañaan bi ñu wax sang moo ko res ak appartement bi ma nekkoon fay mënteur bi ñu wax ibba mu préparé préparation yu jaar yoon parce mhm. que salle yooyu mosuma fa dem mhm. xam nga kon ma am si jàppale boo xam si aussi tamit mosuma ko am kon su ma ñëwee ñu gis gis ñu si man li war mhm. non war a wax ak man parce que ñu def seen xaalis pour ma wan leen la nga xam si ne kii pare na te loolu laa programme woon dama préparé woon sax su ma omoon presse rek su ma ko yëngalee bu pare ku xool di nga ne kii ñàkk lii du moroomu lii parce que fi mu pare woon pour benn combat. ok pare woon pour benn combat. déedéet pare woon pour benn kon su ma juumul am na leneen loo ko doon waajal. waaw tey tey kéwél yow sa combat ak kéwél ko dafa mel ni am na foo ko tegoon ah, am na loo waroon a wane parce que suspension beeg ak presque mën nañu wax ne année balance sax nga def. ren tamit mën nañoo waxaat année blanche nga def kon donc am na leen loo war a mën a wane sa combat ak kéwél ndax ci cadre bëre bi xaw nañ laa jox favori mais ñu bari dañ ne tamit xam nga moo la ëpp rallonge te booy bi sañ bi. ñaari sañ moom ki xam sañ-sañ wàññi lay maanaam sañ-sañ ñu bëreet ak koo xam sañ dafa nekk ci moom muy gën di tàng muy gën a métti ci yow. bokkut ak nga xam si day teg sañ boo ko laalee mu weddi. li ma la wax da ko wax sa biir wax ma kontaan ci loolu comme que da nga ko ba suivre loolu wala nga dégg ko. Hmm. kon noonu la waroon mun a demee yàlla xam na ni dama pare woon pare boo xam si. li ma wax nii pour nit gëm ko waaye man gëm naa ko xam naa ko xam naa fi ma ko tegoon parce que yàlla moo yor lépp mhm. waaye amoon nañ yàqin li nga xam si maanaam bu dugg si stade add mhm. nañ ñuy dégg ci lu gën a pire dañaan ko ci làmb ji ay millions perte bu baax sax comme boo ko doon xayma non xawma nu mu toll waaye démb rek maag sama ànd nañ ñu toog parce que lépp lu mu génn da ko bind si mm. ci cadre mystique beeg lépp lépp lekk beeg xam nga. voyage beeg xam nga yenn saal yi ngay ne xam nga. parce que préparation ma benn mbër boo xam ne dañoo préparé préparé xale yi nii déedéet ki may bëreel dafa toppaate man damaa dañ maa topp. kuñ topp nag daam lay wane maanaam moom défaite victoire victoire jikko ko tàmm. man nag victoire wax dëgg yàlla dama ko war am parce que xale yi ci man la ñuy xool te caare dafa am lu fi nekk. Eh. caare ñu fi mës a nekk yëpp ku ci nekk daf nga li nga war daf dem. Mm-hmm. waaye man tey dama ñëw taxawaat position boo loolu yëpp. yee histoire Thiaroye yu ngeen ko xam. man kay dégg naa nga ni sax danga ne boo jógee ci kéwél kéwél taxu laa jóg ci wuli dëgg nga jëm man loolu sax kii nañu ma ko ndax yaa ngi naan préparé woon benn mbër mais danga ne dangay laal kéwél dugaat ci wuli dëgg tax loolu. parce que bu ma génnee si kéwél dugg ci wuli dëgg. non samay mbokk dañ ma war a rey ci wax nag dama koy wax ma wax la rek. Ah, ni kéwél ak wuli dëgg ah. ñoo yem rek même génération même catégorie la. ñoo bokk benn kii. catégorie la ki kéwél mën a bëreel wuli dëgg mën na bëree moom hmm. waaw waaye nag maa ngi jégul ci dugal bi ma ko dugal xam ne yaa ma si mosoon moom waaye du woon foofu bu sama bët tegu. ii fer bi. non Fatma Dia eh nee na xam nga kii la <laughs> ah, ah non xoolal nag gis nga dafa léegi dafa am génération boo xam dafa nekk ci bopp bi quoi du ñooñu ah. waroon génération boobu du bi parce que boo seetlee 2012. Mm. bi ñu limee catégorie ñoom Balla Gaye. Mm. man lañ ci catégorie bi deuxième bi. waa ci bokk ci meilleure révélation yi maa ngi kon tey boo ñaa bu génnee sama. kanam ah. saa kees génn sama kanam dañuy waxtaan rek ama bali génn sama kanam parce que ñooñu ñëpp ñoo bokkoon même léewtu géew bu ñuy ñàkkente di jàng bëre jàng bëre mooy mbapat yi ñoon woon ñëpp ko bokkoon hmm. tey boo déggee ñu ñàkk dafa yàgg hmm. du ma mag de waaye dama yàgg bëri dama yàgg bëri dama tarbiwu làmb làmb lu ma deful ci bëri rek ci man la dama mën a bëri ba pare nag wóolu sama bopp samay ma gëm sama bopp parce que entraînement lu ñu ma teg ma tegoo ko te du ma wax wax wuy waaye ma ñëw toog nag ki may toogal ma waxtaan ah tey fils kat ni mënu ah ni ni dolli ma amul lu may ragal ci kaw Franc waaw tey du ma soreegum si loolu li ma lex rek tey man la génération boobu nag bi ngay tudd nii sax. Hmm. waroon naa dépassé foofu laa la wax. ñoom franc ay soq ay soq ay franc léegi la ñu ngi jug nii. Hmm. waaye bu may wax ni hmm. boobu ñoom ñu ngi yot. ko laam uh-huh. ma uh-huh. wax ay références yoo xam ne mooy loolu Diène Kairé bi uh-huh. dafa am benn kilifa boo xam dafa bañ. parce que du ma woon instant boobu noonu. su jëloon day laal suuf parce que sama benn booy moo ko daan. départ naa ñooñu ñëpp ñooñu sax bokk moon génération ak ñoom maanaam li ma la wax mu ngi leer mu ngi bugg a ñëw kon ñooñu dem nañ ba génn yeneen xale génn ba yeneen xale génn kon heure war na fekk fu foofu parce que fi ma nekk ñoo fàtte woon li ñu am waaye xëy na léegi seen bët xuppeeku nañ xool nañ gis nañ xam nañ lii kat buñ ko buuxee mu dem buñ ko buuxul mu dem buñ ko kon nañ jéem a buux mu dem parce que bu ëllëgee ñu ne kaar suñ gox gox la dëkk parce que man drapeau bee ma ñor déggoo li wax bàyyi ma génn ci lii su ma génn ci lii Fatma Dia ni ma lay waxee nii noonu laa lay wax fa mu jëm directement du ma ko ragal. sama xel mi ngi si ay roi des arènes loolu gën a gaaw parce que banam bikit bagg boo gis magasin nekk si xel ma du ma wax ñooñ damay tëb ñële falaa lay wax maanaam man mi nekk ci làmb su ma demee bay xalaat naa làmb damay daan rek toog déet kon ma bàyyi sama gox laa bëgg a pare suturaal sama bopp suturaal sama bopp mooy am ci la ma ci war am képp ku yaakaar ci man ma daf la ma war a def ak yow. sa combat ak Boy Bawol. waaw combat maag Boy Bawol damaa suuf àdduna yëpp xam ma parce que man may bëri mbapat la ma ñëpp dégg aussi ba booy bool fekk ma wakaam ma daan ñi mu àndal ñëpp ak ñi muy supporté ak ñi mu indi woon ñëpp mu ñëw simmeeku ma nag boo ñëwee ma daan la jox lu yàgg xam nga sottiwul bu nangoo tey suba mu bañ mu dem benn moment boo xam ne doon moment bu critique ñu fay ma xaalis bëri ma jël ko Assane Ndiaye Baol production moo ko tëggoon muy Marley doomu Jalaaw xam kon loolu yàgg na léegi ma duggee tamit amoon ci yaakaar préparé boobu maa ngi posé cent quinze kilos parce que xëj na fay na ma kasi boo xam ne mosuma ko am. aussi boobu daanaguma du ma xam du ma xàmmee la ma defoon sax damay tege ba tey mi ngi dëgër fekk naagu la ma ñëw mu daan ma ma dund ci lu méttee métti nag. ma jugee xam nga jënd benn fas ndeysaan di ko dawal fii di ko ñàkkante parce que xam nga nit ki boo doonee soutien bu bëri da koy bañ ci xam nga si live bi. ma yor sama fas nañ ko benn booy tuddee ko fas bi benn booy bu ñax taje tuddee ko booy bool quoi. waaw ma dund si lu garaaw waaye sant yàlla nag sant yàlla parce que loolu moo ma def làmb tey moo ma def mbër waaw moom woon yoon. mais combat boobu dama sax jour boobu ba léegi ñaari bëtam avant muy génn àdduna ba léegi seen ñaari bëtam yi muuru ñu bari na mystiquement sax da ko cee def waaw mooy li ma la rek xam nga kay ku la tëbal yu mel noonu yëpp ne la dem na ba. waaw day metti parce que nit ki amul lu dul waajuram te bu sañoon waajuram fekkee lu bari ci moom. si njëriñ ci ba non maire bi bi combat bi taxawee parce que yàlla xëy na moo dogal loolu waaye pour ma leeral la rek bi combat bi taxawee la benn bët bi muuru bi ñu waaj dugg ci làmb ji ñaari bët yëpp muuru kon sant yàlla parce que tax sant yàlla mooy moom defal na ma lépp lu ma war defal parce que bu demee ba na koo jël kooku yàlla ko yàlla xaaraa jana parce que dafa dafa gée sama carrière bëri bëri bëri ba cul bëri nag parce que bu ma dem ba nit ñi di ma xool wala dund ak nit ñi ni dundin bu rafet ci moom la waaye sant yàlla waaye làmb moom lépp ngi ci lépp ngi ci parce que yaatu na parce que nee na gars yi nee nañ foole woon waaye xam nga ku si daanu ruus jamono yi moo tax képp ku nga xam si maanaam ndam dina la jaral lu ne pour nga dund ko nu la neexee wala noo yaakaar rek waaye nag mënuñ ñàkk lu ta ñàkk moom foog moom waaye sama waajur boobu maa ngi koy ñaan la yàlla ko yàlla xaar àjjana ñam fa fekk ak ñu ko fekk ñëpp parce que ñaan gi mu soxla dinaa xam nga wéy dafa ko na mu ko bëggee woon waaye sant yàlla daal. non lu leer euh, bi ma demee ba si biir de naroon naa dem bàyyi làmb sama sama sama doomu mag yi du ma tudd seen tur wax xam nañ ko waaw dem nañ ba boole ma seen yaay ne ñàkk dafa découragé làmb dafa dafa bàyyi làmb waaye xam nga nit ki li nga xam bëgg ko mu nekk ci yow lu mënti xew tamit nit ngi yow moomatoo sa bopp parce que waxuma la gox waaye dëkk laay représenté xam nga kon tey dëkk boobu bu ñëwee tey xam nga ñëwaat xu buuxaat ñu dañuy demaat parce que du ne dontul ñun suñu waaj avant mu génn na bëggoon na tey ci liñ nekk ñu satisfaire képp nga xam si maanaam yaakaar nañ wala bàyyi nañu xel waaw. làmb yàqu na ndax ci seen combat yi sax affaire sécurité ñoom ñoo ko yàq ak Covid mais ñàkk nan la gisee instant bi làmb fu mu toll loo gisee ñu bari nañ waa waaw fu ma koy gisee sama gis-gis bu gàtt rek bu ne waa làmb ñoo yàq làmb xëy na am nay pàcc yu waral ñu wax loolu maanaam am na ay affaires yoo xam moo tax ñu wax loolu parce que làmb waa làmb ñenn ñi la ñenn ñooy waa làmb tey mooy xam nga tey parce que. làmb seente ko fi teg ñun ñoo ko fi waaye nag maanaam am na feneen foo xam ne luñ fa dugal fa la jëm ci kaw la jëm kon ci kaw buñ bëggee làmb digg bi ñu bëgg làmb kon dañuy dimbal ñu suuf c'est-à-dire tey ñi ŋànk loolu téye ko ñoom ñoo war a satisfaire soutenir làmb parce que làmb li ciy dund a bëri Fatma Dia tey ñu gëm ci mbir yàqu ñu gëm yàlla dundu ko yombul te aussi nit ki nga xam si man da nga yaakaaroon ci lool ñu arrêté ko tey tey nga war a xëy am na yoo xam ne war nga ko mën a def boo nga dégg ñuy laaj leen loo xam ne manqué na almadia dee dund ngay def dee dund mooy naa def lii su ma si dee baax na su ma si dundee mooy indil leen garaawul jixaat lay doon comme naari nu ñu doon jixaat dañuy jël dara ñu jox la ñu dumbal seen famille dem dee day Sénégal day tolli foofu te bëgguma loolu ah man bëgguma loolu personnellement parce que tax bëgguma loolu mooy nañ jàppale làmb parce que li siy dund bëri du man kese yow mii xam nga te rapporter nga man mbër laa promoteur da si dund amateur da si dund même ñi ñi nga xam si maanaam dañuy xëy yaakaar sax yor seen marchandise dañuy dund ci làmb kon làmb développement la te buñ ko yàq nuñ ko gën a defaat ñoom nag am nañ ñu nekk seen ginnaaw dinañ leen jàpp te am nañ loo xam ci euh, seen i seen seen affaire yoo xam si même bu dul làmb ñoom loolu ñu ngi ciy jàppnu kon ñoom ñoo waroon génn dugg wax ak kañ war a wax xam nga mu soutenir leen ci liñ jëm rafetaat ko téye ko dimbali ñu fi nekk pour mu dem. waaw taxawaayu mbër yu mag yi mooy ñoom ñoo waroon soutenir ñu nekk ci suuf parce que ñoom jamono yi am na nit ñoo xam ni làmb bu yàqu woon seen yoon nekku ci ñun nag tey du ma wax ñu suuf suuf suuf waaye dama naan man personnel rek ñooñu bu ñu waxoon wax bi mooy lan dégg naa Gris Bordeaux def na lu mel noonu. waaw def ko. seetaanu waaye dama ko dégg rek ci groupe bi waaye mu après si laa benn interview benn mbër. muy wax ci lu mel noonu. parce que moom bu toogoon dañ defen na nag rafet na bëgg nañ ko loolu waaye dañu waroon toogal ñun ñëpp parce que metti na. ok bu boobaa dina xam jàngoro ji. dëgg la mbër la comme ñun mi ngi yëg jàngoro waaye ñun ni ñu koy yëg ak moom ni ñu koy yëgee bokkut parce que moom yëg-yëg mun na bañ a métti waaye ñun bu ñu bëriwul rek day mett ci ñun. parce que ok jeex na tàkk kon kooku dafa waroon dayale yi wax li làmb bëgg ak li làmb li méttu làmb bu boobaa dinañ ko mën a dégg comme ni ñu recevoir ay promoteurs yi bu boobaa moom dinañ ko recevoir parce que loolu mooy yoon parce que bu ñu recevoir même journaliste war nañ ko mën a recevoir parce que li muy gis moo tax mu waxtaan ci parce que am na yoo xam ne dina ko gis te bu xëy na bu ñu ko xeeb ci xam-xamam kon làmb ñu ci dund bëri kon waroon nañu woo ña ñu war a woo waxtaan ak ñoom ñu solution ñu trouver solution parce que soxla nañ ko ñun ñëpp. mbër góor gaal